nañ leen ko defar fii. dajale koppar luy avion. médical. gaa yi jëli léegi bu ñëwee ñu quarantaine nag xanaa nag loolu nag Macky moom nañ ci mën a jublu. waaye nag ah mais est-ce que loolu dina ko nangu. critique yéen a kaay ñëw ah, loolu dëgg la. non askan wi ñor na ko. Bougane texam bi nee na partenaires yi ñuy tiitaroo bu dara desul lu dul xaalis ak business ñu indi mille milliards pour le train express régional trois cent milliards BRT. cent cinquante milliards. te yëpp da nga leen koy jox. stade olympique. yëpp da nga leen koy jox cent cinquante. dégg ñun ñooy génne ñooy génne jox leen. ñu defaral ñu ne dañuy defaral góob de. ñu ah, ñoom lépp luñ la wax ne la ñun dinañ financer temps la mm-hmm. ñun dinañ joxe temps mm-hmm. calculer kooku yow en retour lan la fas yéenee góoluwaat après. Mm-hmm. dañoo foog ne autoroute à péage bi dañ ko jox français première tranche bi deuxième bi ñu jox ko chinois yi nii ñoom ñu ñëw indi Ila Touba ñu indi seen quatre cent milliards def après may ñu ko dem. <laughs> Euh, forum civil nee na leen xoolaale ay exploitation yoo xam ne ay plus de vingt ans. pétrole bi ñu déggee gars yi ñu naan ay exploitation quarante ans. maanaam ñun moom. xam nga ñun moom li ñu dund moom wóorul ba xam dinañ ko dundaat ku am quarante an ah ah ay quatre-vingt-deux kon maanaam ñin moom ba keroog ñuy dee. dañuy fay bor. ba keroog ñoom Franck Timis ak ñoom ñuy takk ci kii bi pétrole bi nii yëpp. ñoom maanaam seeni set ñoom moom dañuy dee. Mm-hmm. <laughs> mais ñoom seeni set après dañuy ñëw di fayee ko ba léegi. moo tax forum civil ñu demandé gouvernement Sénégal pour ñu renégocier waat. les contrats les ci autoroute à péage bi. autoroute bi xat na. Mhm. péage normalement boo yegsee comme son noo l'indique da ngay fay mu ubbi nga départ. Mhm. mais ñi ci suuf ak ñi ci kaw 18 heures ñoo tooy. Mhm. encore pire sax. carte rapido bi bu ñu demee ba ay 18 heures existé tout de. ñoom ñëpp jënd la. nga am ak ñàkk am. c' embouteillage ngay tàmbalee Patte d'Oie ba keroog nga yéeg Pikine waa loolu ana ana njariñu péage. gisuñu ko gisuñu ko ko négocier. critique yéen kaay ñëw ak ñun ci lii nga xam ne moo teree nelaw chinois yi. Ndakaaru Ndiaye Jalle nag takku nañ ñu ngi gis nekk nii ñun ñoo raw naanaa de lu toll fukki réew ak juróom-ñaar seeni expert ñu ngi institut Pasteur. waay mu nekk nii di liggéey. doomu jàngoro ji ñoom ñoo war a dimbali sax tout le continent. waaw doomu jàngoro ji maara day taale Pasteur. te ñu ngi fii si Dakar. waaw coronavirus. yàlla musal yàlla nañu ëmp coronavirus. amiin yàlla nañu ëmp yàlla nañu ëmp. le témoin nee na moom ak Ebola ñoo bokk benn baay. tey eh, moo ko raw. ndey lañ bokkul. <laughs> c'est terrible. eh ñoom ñaar dañoo nuroo ay symptômes. Hmm. nuroo nañ de c'est que bii mooy Ebola au Chine. Mm-hmm. c'est l'Ebola chinois ñun Afrique amoon nañ suñu bos. Mm-hmm. ñoo bokk ñoom ñaar dañoo dañoo nuróo kii dañoo nuróo ay ay bokk nañ ay bagages ñoo bokk baay mais bokk ndey. Ebola ci liñ commencé di wax ay cas de terrorisme yu bëri yi est que tamit. dañu euh, dimbali rek mënul ñaaw njortu ca foofu. waa Afrique moom xam nga ñii sax yàlla da leen weer rek mais Afrique moom. jàngoro yi bon yëpp ñu buux ñu ko. Mm-hmm. Ah, ah, ah. waaw moom moom laay a. macha allah ñoom a wàññi. c'est am na loo xam ne am temps bi. mais Chine dafa sonal États-Unis dafa sonal toutes ces puissances là. la Chine est la première puissance économique mondiale. waaw américains yi dañuy bañ dañuy dëgg dëgg. waaw ñu daal di jublu si benn Vox Populi nañu Macky Sall nag jooyloo nag parents yi. ndeysaan étudiants yi démb wax nañ ba jooy. parce que ñoom fi mu nekk nii nee nañ sax ñoom suñ demoon tey ba yàlla ñëw. Mm-hmm. ñaanuñu ko yàlla par extraordinaire seeni doom dee. nañ leen dimbali laay war a suuli boobu bu ñu leen lakk. xam nga asiatique yi moom indo yi chine yi moom bu ñu dee. moom voilà incinération googu nag ñoom daal la ñuy ñaan yàlla te ñu ngi sàkku ci président Macky Sall nag mu taxaw enquête yéen kaay ne mais gouvernement bi wax waxet nañ de jubbante waat nañ seen de. Ah. Mm. na les propos de Macky Sall. Euh, sont mal interprétés. et ñun la kon. Ah, ah, ah, nee na yéen ni ngeen ko faram-fàccee noonu ak ni ko Macky waxee. bokkul nan la ko Macky waxee nee na moom. ah di ko ni ko Macky waxee de. Macky daal en tout cas daal xam na leen daal amuñu ay moyens di ay jumtukaay yoo xam ni ñeññeññeññeññeñ waaye daal Diouf Sarr daal <laughs> Diouf Diouf Sarr. Mhm. waaw borom ñaari sant séeréer yi daal nee na yéen ni ko kiiyee ak ni mu kiiyee. ni ngeen ko kii léegi léegi ñun léegi ñun ñoo am toor quoi. déedéet déedéet waxul ni ngeen ko déggee de. <laughs> ñun ñoo am toor. ni ngeen waaw kay yéen yéen ni ngeen ko tojee. ak ñoom nañ ko xaajamee. waaw kay ak ni ko mag yi tojee. <laughs> non bokkul de. non léegi kay li mu affaire bi yomb na na président Macky Sall wax ne non. waxuma loolu. ñële dinañ leen jëli. aussi est-ce nekk di tergiverser aussi chaque lu lu askan bi. déggewul comme ni mu ko bëggee mu génn wax. est-ce que mu bëri wax tamit. dama ne ah. dama ne te ma wax la benn affaire de. fi mu nii li wal faj wal fajri li mu bind nii loolu mooy dëgg de. c'est une waaw wallaahi. waaw parce que affaire bi. jàllatul parce que léegi mënatul leen déglu Macky se trouve actuellement entre le marteau et l'enclume. gis nga. Macky instant bi comme yonent yàlla Ibrahima biñ ne ko rayal sa taaw bi te tabaskee ko ne de <laughs> te yëkkati na paaka bi parce que ñii mënoo jël risque ni leen buubee indi leen fii. Mm-hmm. te yow amoo assurance. c'est ça aussi sécurité bu tax. Mhm. ñii bu ñëwee maara day taali kenn laal na ko ceeg laal na ko ceeg. Ah. feebar bi sëqat rek. Mhm. Mhm. wala borosante gisoo ni ñu leen di pompé ku wàcc ci aéroport dañu lay pompé. bu seeru yére bi nii rek. coronavirus bi dugg la. <laughs> sëqat ji. léegi nag est-ce que moom mii Macky. est-ce que waaw. ay service am wax nañ ko ne ko lu fi mënta ñëw ñu góolu ko. mu ne dinaa jël risque bi waaw wala déet te. neex naqari doomu Sénégal bu nekk ca bitim réew Macky dalaa war a jëli. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est un dilemme un choix difficile. c'est un très c'est un très c'est juste au niveau de la communication. qu'ils ont péché war woon waxee noonu. xat-xat lay dund waxin bi. xat-xat lay dund moom ndaxte. Macky euh, ngi ci xat-xat gu <laughs> a jëli neex nekk nii nekk fii tamit à un moment donné. neex naqari euh, dama ne bu leen doon jëli indi leen fii Sénégal. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu dee da di jëli par force est-ce que nag war na leen di jëli indi leen mbir mi am risque nit ñi dee. man nag li ngay wax nii. ñaar yëpp fi mu ne nii Ahmed fi ne nii xanaa xamoo ñaar yëpp daal la lu ci dam te ñaar yëpp dem devoiram la. am na am na benn am na benn daf ñu war a protéger. ñu ne fii ba jàngoro ji du fi ñëw. Mhm. xaw ma nu mu koy defee. Mhm. ba pare te doomu Sénégal ya nekk bitim réew yi mhm. toll ci ay jafe-jafe jafe-jafe bi nu mën a mel dalaa war a jëli indi la. mooy dëgg. Macky ci li la ne. Ahmed benn problème am na. Fatiha fa la xanaa salaatu Fatiha. benn problème am na yàlla musal ñu ci. yàlla ñu ci amiin amiin amiin yaa rabbi allahumma bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maalikil yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin yaa rabbi bismillahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi falaq min sharri maa khalaq wa min sharri nafaasaati fil 'uqad bismillahi rahmaani rahim qul a'udhu rabbi nas maliki nas ilahi nas min sirri nas allazi wasiwasi sudur nas bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wa sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhanallah salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yéegali yéegali amin ya rabbil alamin yéegali allahumma yal na yàlla sutural la ci sa barke maam sallallahu alayhi wa sallam nangul la sa ñaan amin amin dama doon wax rek. waaw dama lay doon dooleel nga nga dugg ci. waaw waaw waaw yëg nañ ne. Mhm. dégg naa ñu ne. Mhm. wax nañu. Mhm. ci xibaar ne. il y aurait un cas en Guinée Conakry. a oh. jegeen lool ma wax lool rek ñu bàyyi ci xel. doy na waar coronavirus daal yàlla rek ko mën a sàmm. yàlla rek ko mën a. <laughs> heure jot nag jot heureusement bi ñu sànnee ñaan fàtte fa la xëy naa salaatul fàtte <laughs> salaatu bu waay ma de waaw ah, salaatu bu waay de ñu ngi demee suñu kilifa yaa ngi ñuy seetaan suñu ñoom papa Elimane Sakho bu suñu maam El Hadj Ibrahima Sakho mm-hmm. mu ngi ñuy seetaan mook ñoom suñu papa Cheikh ñas mm-hmm. fii ci Mermoz ñu leen di ziar bu baax nee nañu yóbbante mm-hmm. ñu ngi ñu ngi ñuy ñaanal ah, voilà macha allah ñoom seen ñaan soxla nañ ko lool lool loolu daf may yóbbu nag ma ji jaajëfal ak ji dellu njukkal kilifa yi nga xamante ni ñoom it ci euh, Kaolack ñu ñuy ñaanal yamba mm, waa Kër Maam Baye waa ah, Kër Maam Baye ne ñu liggéey bi ñuy def rafet na euh, colinu jigéen ñi yiw na te mm. c'est ah, colinu jigéen ñi mm-hmm. yiw na euh, te ku ci nekk li ngay mm-hmm. wax Euh, saytu nga ko. Hmm? te yaa ngi koy jottali ni mu ko waree. alhamdulilah alhamdulilah ah, di nuyu tamit Seyda Yande Maguette ñoom fii ci Iscature hmm, ba hmm, moom it euh, euh, mi ngi ñuy encouragé. en seen ay. ñaan macha allah daf ma tuddal alaaji Moussa xaw ma jox ko loxo. wallaay su daan waxtaan di gàmm ba ci yàgg. day ah. jékki-jékki rek xoolal wax dara nit ñëpp daanu rek mu jox la loxo. Ah, <laughs> est-ce que est-ce xam ngeen ni waxtaanee ko daf ñuy mere. <laughs> ñoo ngi de. laas nañu Dakar. bi nekk nii en alerte takku nañu les écoles yéen kaay ñëw ak ñun ci mi ngi nii. ñu indi leen ay bakkan daal moo gën ñu indi leen ay keesu néew. loolu la waajur yi wax dégg nga loolu. évidence mm-hmm. nag ñëw na ci AFP. ñu ngi soog kon Moussa Cissé Lo mm-hmm. waaw kay ñu ngi nii. série noire bi ba léegi nii la kon mi ngi continuer ba tey jile mm-hmm. waaye yow APS moom li fa xew moom doy na waar di. non ci entreprise su sénégalaise yi. gars yi ni leen di dàqee tamit doy na waar di. ku wax loolu l'observateur c' est grave dàq yi daal nit ñi man xam naa dàq yi daal war nañ koo wàññi doy na waar doy na waar ah puis non waa AFP ñoo koy tontu ak waa kër Mimi Touré ñoom ñooy tontu Gaston Mbengue waa AFP di tontu Moustapha Cissé ñoom la rek ma di leen jaajëfal bu baax a baax surtout eh, yow cant gërëm ñeel na la waaye nag suba man maa ngi xaar c'est dommage parce que yaayam du fi nekk waaye seetaan ñu ah dama leen di seetaan sama doom ñeme ah, naa ko. Ah, suba de dafay ñëw ci waa ji nga xamante ni dafa bëri woon alal loolu. Ah, euh, euh, euh, nekk ci benn dëkk. Hmm. waaye jabaram am ci moom. am fu muy comme daal xam nga ballon. nga ëf ko ba mu gonflé nga jël puso rek jege ko. Hmm. suba lay doon ragal kon na ko ñëpp teewlu incha <laughs> allah. Yacine ma di la jaajëfal leen de laa subaa na nga indiwaat sa concours bi. sama sama sama péripi. waaw ah, indiwaay neex na la hmm, trop. madame euh, Diatta moo fi jaar bu suñu taar seen numéro de téléphone hmm. mi ngi fii suñu taar di taaral jigéen yi xam nga sama kanamu hmm. démb ak tey bokkul la. am na njëriñ maa ngi mel ni tàngal ne ko am na oh, njëriñ. tàngal euh, non yaa ngi mel ni. rabu dex xam nga luy rabu dex. rabu dex ah war naa taaru. rabu dex day rafet lool. da ngeen di sëy nag. Oh allah macha allah da ngeen di sëy nag c'est de da ngeen di sëy nag da ngeen di sëy. waaw bàyyi leen toog ci nii rek nit ñi naan leen dangeen ngeen yooyu te doo leen sëy wala ngeen di taamu daal da ngeen di sëy jigéen da ngeen sëy jigéen da ngeen sëy waaw da ngeen waaye nag tamit partenaires yi kenn waru leen bàyyi ginnaaw. ndax bu dul ñoom tamit nag suñu taar bu feeñ. mais mais da nga yëngu partenaire bu officiel. waaw. leçon su kon nag ci noonu lañ leen di jaajëfal di la jaajëfal Pa Assane di la jaajëfal yow Binta di jaajëfal l'équipe technique euh, saa su ne rek euh, dama leen di wax ni bu dul woon yéen lambay ñaaw. léeg-léeg ngeen jàbbante Bakary Maam Sidi Malick. Euh, Suki. Suki. Anta. Anta xaritu. Asba. Asta uh, ak ki nga xamante ni tamit ak mooy Louisa saa sa ne rek moom day xool lan ngay sol tey suba ngir rek plateau bi gën a yandi di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi di jaajëfal internautes yi yéen it ci seen participation di leen bàyyi rek avec la bonne suite des programmes de la Sen TV waxtaane ko mi ñëw ci kanam rek tuuti wéetali leen